bu amee lu desit buñ jullee ba noppi mottali ko bu soobee yàlla euh, ñu fàttali rek niñ ko waxee woon tomb bi ñu waxtaane mooy nekkuk sëriñ bi njaareem doon gim doon jaaruwaay walla jamono ji mujj ci euh, jamono yi yi nga xam ne sëriñ bi ci la doon liggéeyal sangam ba sallallahu alayhi wa kon sëriñ Xaadim bismillah bismillahi alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa qadimihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin ixwat al iman wal irada asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yéen bokki jullit yi teew ci barab bi yépp noo ngi yëkkati kàdduy nuyoo ak siyaara di ko jëme ci yéen te di ko teg ci loxol boroom woote bu mag bi di sëriñ Abdou samat ak bokkam yu baax yi ànd ak moom di ko wéttili ci liggéey bi muy defal maamam ak bokki taalibe yépp ak wëlëri ak soppe yépp comme ni ko Cheikh Afia waxe li seddee ci jataay bi mooy étape bu njëkk bu mujj ci étape bi yi nga xam ne xaadima rasul jaar na ci ci biir liggéey bi nga xam ne moom la jaayante woon ak boromam ci liggéeyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waay sëriñ Abdou Samad dafa waxan ne comme bis bii mooy bis bu ñuy fàttalikoo dellu si sëriñ bi bàyyi ko ci géej gi ci liggéey bu réy bi nga xam ne moom la loon defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sunu borom subhanahu wax wa zakir um bi ayaamillah inna fi zalika la ayatin li kulli sabar shakur subhanahu moo santaane ñuy fàttali événement yi jàll te di bàyyi xel leçon yañ ca war a jëlee bu dee loo xam ne tiis ak métit la àndalan muñ ga ca góor yàlla ga jële woon ba yàlla faye ko ca lañ ko ca faye moo waral li sabbaar ja waaye bu dee événement boo xam ne xiiwal ak mbégte la indi it xiiwal googee sunu borom subhaanahu defalan jaamu jaamam boob yi bam sant ko ca cant yu buñ koy fàttaliku ñun itam taxawaay bi jullit war a am ci sant boroomam ci boo ko defalee lu mënta defal boppam lañ ci war a jëlee sëriñ Abdou Samad ne woon kon nañu laal ci nu gaaw rekk ci kon ñibbisi googu agsi nag ci li nga xam ne mooy étape bu mujj bi xam ngeen ne sababu zaahir toujours ci étape bi sëriñ bi jaar yépp day ànd ak sabab bi baatin bi ko noon yi génne réew mi seen jubluwaay moo dan maanaa taxawal wooteem bu mag boobu yi ak fay taalam bu rëy ba bu mu taalan ndax jàppan nañu ne juróom-ñaari at su ko génnee nekk bitim réew ah wan gannaaw li mu sampan bàyyi ko gannaaw te loola nekkan ci njëlbeenam ndax première génération bi nga xam ne ñoom la njëkk a noppi ci ñoom ba responsabiliser leen bi mu tàmbalee ci bu ñaareel bi ca la ko génne ñu jàpp nag ne bu amee juróom-ñaari at ci bitim réew ñooñu mu fi bàyyi amuñu benn contact ak moom xamuñu ci moom dara mën nañoo jaaxle sax ba dem paneen seeti kaneen wala seeti laneen loolu lañ ci jubluwoon waaye sunu borom subhaanahu ci biir liggéey ba xam ngeen ne mu fayee ko ca lu jaaxal lool ñi nga xam ne ñoo ko yóbbu woon ndax bi mu dellusee ba indi sëriñ Caam bu rëy ba fekk na fi ñim fi bàyyi woon jëpp fa ñu taxaw taxawaay bu mat sëkk ba góor yàlla woowee mu sampan képp koo xam ne bi muy dem fukki nit la bàyyi woon ak yow ci misaal nga di leen defar bi mu ñëwee fekk na lu ëpp téeméeri nit yu laxasaayu ànd ak yow jaayante ak yow nga di leen defar yoon wi gën a yaatu gën a yàkkaliku bu baax a baax lam fi bàyyi wari dara mbéju ci fa tabaarakallaahu bi mu dellusee nag e nit ñi ñépp nag ñi fi bàyyi woon ci mboolam goxi Sénégal yépp riir nag ñëw di jaayante ak moom loola nag tax e ñu jëlaat beneen xalaat ci génnewaat ko yóbbuwaat ko faneen te xamuñu ne booba dañ koy dimbale ci xiiwal gu réy gu yaatu gi nga xam ne moom la indi e dañ koy dimbale ci nu mu koy séddalee parce que gànnaar gañ ko yóbbu sabab ba mooy jàppoon ne maanaa bu ñu demee dana am complexe d'infériorité ci kanam naar yi nga xam ne ñoom it dañuy am complexe de supériorité ci kanamam ndax pour ñoom nit ku ñuul jàpp nañ bu ñu yóbboo sëriñ bi ca teg ko ca loxol Cheikh Sidiya mi nga xam ne moo doonoon sëriñam way juri Cheikh Sidiya moo doon sëriñu sëriñu way juri sëriñ bi kon du doon lu dul ab donga bu topp ci gannaaw sëriñam ñeneen ña ca des scénario comme nit ku xong ak naar ni muy jàppee nit ku ñuul di ko ko xoole jàpp nañ ne bu fa sëriñ ba demee itam e duñ ko may muy wane di di di ak melokaan wam wam ba mu yóbbaale duñu ko xajal te dañ ko sonal lool surtout ci nag ci ay masala ak lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu diingat ko ak e, suufeel mbiram waaye ba ñu demee safaanub loola moo am Cheikh Sidiye ci boppam moo ko teg teg ci jat ci cër boo xam ne du cërub kuy xoole nit ki sax ku ma sa doon sab taalibe waaye kuy xoole nit ki kat royukaay buñ war a roy nit koo xam ne itam géej la guñ war a tàng ci moom waaye naka noonu it yeneen gàddinaar ye yëpp boroom xam-xam ya ak ña fa aman cër ñëpp it dañoo riir wut ci sëriñ bi ñenn ñi di sàkku ci moom mu yeesaleen leen awraat yañ yoroon ñenn ñi di sàkku ci ñoom mu wan leen yoon wi leen di àggale ci yàlla ñacey borom yi xam-xam di sàkku ci ñoom mu gàgganti leen ci ay masala yoo xam ne lëntan na leen te xam ngeen ne masalatul maaya bi nga xam ne e, sama doom Serigne Issa ñoom ñii ak e, ñiy bind ci gànnaar leeral nañ ca lu bari ci ay fatawa kon mu nekk loo xam ne kon ba tey e, lañ doon séentu ba tey gisuñu loola ndax tey lu baree bari ci ay kilifa yooyee di ay naari gànnaar di ay awliyaullah di sëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo jaayante ak moom nekk ay taalibe bañ fa jógee ba andi ko ca yéen ca yéen it loolu lañ ca jublu nekkoon nañ ko yóbbu foo xam ne du accessible du neexa dem te duñ ca yem waaye dañuy limite ña fay dem te kenn ku nekkit bala ngay dem dafa am ay charte yu ñuy tëral ci yow yoo xam ne li feeg remplir ko mëtaloo ko duñ lay may nga man faa dem te boo ko mattalee it da ngay dem ci commandant wu cercle bu bu Louga mu jox la autorisation nga man faa àgg waaye loolu lépp tey mel ni eh, dafa yokk pëstéef ak yittey waa réew mi tey muy loo xam ne ci période ceyeen mboolem góor yàlla ak kilifay jiine yi nga xam ne ñoom la fi bàyyi woon te jotuñu woon a jaayante ak moom lu jiitu muy dem ci géej gi muy këri doomi soxna yëpp mën nañoo wax ne ci période tu ceyeen lañ ànd ak seen mbooloo ñëw fekk ko ko fee jaayante ak moom comme ni ki nga xamee ne ca gànnaar ja eh, mag yi wëy maam yi ku baax kii doon yëkkati kàddu yu am solo sunu bokk yu baax yi tey eh, di kër maam eh, maam moxta moxtaar maam maam ak maam Malick Bassine xam nga ne ñoom ñaar ñooñu eh, gànnaar lañ ko fekk fa lañ jaayante ak ñoom ak sëriñ Aliou Seck Wanaar waaye ci ceyeen nit mag ñu bari ci magin baakool yi ak Kajoor ak bawal bokk na ci sama maam Serigne Mirina ànd ak ñaar fukki penc Tayba ak benn ak ñaar fukki penc ñëw jaayante si sama maam Serigne Mañaaw Silla bu ñaxal noonu la def ànd ak waa ñaxal gépp ñëw jaayante waaye Serigne Tayba mut fa ànd ak mboolem penc yi sant ja yëpp fekk ko ceyeen ànd ak condition yooyu yëpp kon muy loo xam ne kon lañ bëggan ca loola lépp amul lu bari ci tarbiya góor yàlla yi nga xam ne itam ñoom la fi bàyyi woon bàyyee leen ak sëñ Mbacke Bousso ak maam Thierno Ibrahima ak sëñ Daam Abdourahman ñoom ñëpp muy ay ay ñi nga xam ne ay tout tànk lañu wan ñu war a def ci ñoom al alxuraan ak xam-xamu diine mën na ñoo xam ne ci période ticcéyeen bi foofu la defar seen tarbiya kon taalif ba ay téere yu bare bari léegi nag ñu ne kon fi ci des kon mooy njaareem njaareem nag comme dëkk la boo xam ne comme mënuñoo tee nit ñi ñëw fekk si ko fu nekk kon nañ yóbbu ko foo xam ne comme moom defar gone yi ak ndaw ñi moo ko itteel nañ ko yóbbu foo xam ne la fa nekk ci ci ci pagaay dégg nga ak xeeti barab yu ñuy noose ak yu mën a yàq ndaw ca cinéma yaag ak lépp loo xam ne lu mën a attirer attention ndaw buñ ko yóbboo foofu moom day nekk barab boo xam ne eh, tey lam bëggan du ko man ndax lu mu yendoo defar tabax ci bëccëg bi bu guddee tey noon yooye ak yooyee fa nekk màbb ko loolu moo waral <coughs> eh, ñu yóbboon ko foofa ngir yaakaar loolay déngalam ci wax raamoma siri ila jurbel la daa la sa sin law allimoo shirra ma fii sëyri ma raamoo ñu ngi may indi jaareem waaye bu ñu xaman li ma yàlla subhanahu nara defal ci andi gi duñu fi andi xamuñu ne booba njaareem mooy e, e, période bu mujj bi ci ab liggéeyam e fa liggéeyam bépp fa lay wanee nag ci wàllu théorie ak pratique mboolem yoon wi nga xam ne moom la war a teg ñi nga xam ne e, mooy góor yàlla yi nga xam ne ñoo war a saytu ab liggéeyam gannaawam ba du mejji du yàqu kon muy période boo xam ne mën nañoo wax ne période bi ëpp solo ci dunduk sëriñ bi la parce que lam fa am mën nañu wax ne ba mu tàmbalee woote bi ba jamono yooyu ëmb ko ci benn barab fukki at ak juróom yu teg yoo xam ne génnu fa te mboolem góor yàlla ya nga xam ne ñoo àndan ak moom cëg njalbeen ñam ca tànn ñëpp ñu ànd ak moom wéttili ko ñoom ñoo nekk fi peggam ànd ak moom liggéey booba loola waxtu wu nekk buy muy bu leen soxlaa mën a gisee ak ñoom buñ ko soxlaay it mën a agsi ci moom loola ci période u rek la amee muy période boo xam ne bi sëriñ bi agsee fekk na dëkk bi muy njaareem mu nekk bëkk boo xam ne li ko caractérisé mooy civilisation occidentale ak li nga xam ne mooy coutume ak traditionnel ñi nga xam ne ñoo fa cosaanoo eh, te la ci ëpp di suñu bokki séréer yi nga xam ne ñu ci bari ci ñoom booba sax duggawuñ ci biir islam civilisation occidentale buñ ko waxee mooy cinéma yaag boîte de nuit yaag casino yaag lépp lu mën a yàq eh, gone seenu dëkkiin seenu soliin seenu comportement lépp loo xam ne nañuy dunde ci biir Europe loola rek lañ transformé transféré andi ko fële te mboolem ña nga xam ne it ñoo ànd ak ñoom ci ay sénégalais yëpp itam dañ leen a soppi ay tubaab yu ñuul yoo xam ne ñoom it noonu lañ doon dundee la ca toppit mooy sunu bokk yi nga xam ne eh, ñoom lañ wax nga xam ne ñoom ci eh, diine yu jëkk ya lañ doon dund nga xam ne itam eh, ay xuu ay tuur ak i ak i ak i ak mbaanaar dégg nga ak i yooyu rek lañu lañuy la ñuy jaamu dégg nga ak tëgg ak pecc loola maanaam atmosphère boobu ak loolu la fekkan mu caractériser li nga xam ne mooy njaareem waaye sëriñ bi rek bi mu agsee rek liggéey bi mu njëkk a def ci biir liggéey bi parce que Cheikhul Khadim étape bu nekk ci étape yooyu nga xam ne ci lañ ko jaarale fa tabarakallahu ci stratégie maanaa dafa adopté wu ak réalité yi milieu social boobee ca maanaa uslub wala méthode tarbiya ak defar ga nga xam ne moom la fay def de ko méngale ak na milieu boobee mel ak la milieu ba laaj fenn fu ci nekk moo waral li ko caractériser ci wàllu xitma ak ci wàllu liggéey bokkut ak la la caractériser étape ba ko jiitu bi mu agsee li mu njëkk a def mooy fexe ba transformer dëkk bii ba mu nekk dëkk boo xam ne la ca ëpp lépp boo fa duggee xam ne dëkkub lislaam a ngi nii dëkkub ay jullit a ngi nii jëlee ko ca melokaan wooyee loolu moo tax bi mu agsee ba nga xam ne e tubaab jox nañ ko fii mu nekk waaye espace bañ ko fa jox bu xaw a limité wu la dafa laaj ña nga xam ne ñoo fa dëkk yëpp ci ña fa ci cosaan lañ fa am ci suuf lépp luñ ko ca mën a baaxe mu jënd ko pour dolli ko ca lañ ko ca jox jënd fa lu yaatoo yaatu ci suuf dolli ko ca la ko tubaab yi joxan bi mu noppee nag góor yàlla yi nga xam ne ñoo ànd nag ñoom ñëpp ca njëlbéenu liggéey ba mu tànn ca ñoo xam ne ñooy ñëw dëkk ak moom peggoo ak moom ànd moom nekk ay ansaaram ci liggéey boobu xotti pénc mu yaatu rëdd ci penc ma jàkka pour ñëpp waaye la wër penc ma yëpp itam mu antiré ko góor yàlla yooyu nga xam ne ñoo koy jàppale waaye natt penc ma mu yore wàcc wàccuwaayu xibla wa wàcc waayu jàkka waaye yëmul ca loola ba mu defee loola ba noppi dafa digal nag rakkam ji baax ca seex Cheikh Sidil Muxtaar di borom gaawaan ci côté nord bu Jurbel muy noor bi féete penku mu sanc fa ab quartier boppam sant maam Cheikh Ibrahima Fall ci côté nord bi te saw mu sanc fa ab quartier waaye sañ sant itam e digal Cheikh Mbay Saar itam Sëriñ Mbay Saar ci côté sud bi noonu la ñu def mu mu nekk ci côté penk bi muy ñetti quartier yoo xam ne tey boo demee Njaareem tey man ngaa wax ne eh, soixante-dix pour cent ci ña dëkk biir Njaareem yëpp ci biir quartier yooyu la ñu dëkkee sëriñ bi fexe ba kon li ëpp ci ñi dëkk Njaareem yëpp noonu la def installé quartier yooyu kenn ku ci nekk nag lancé appel ci say taalibe yi nekk ci différentes régions Sénégal yëpp nga fekk si leen foofa ànd ak ñoom liggéey bi ñenn ñi itam gàddaay ci seen coobare fekk si leen ba nga xam ne mu nekk ay quartiers yoo xam ne yu mag a mag la pour li nga xam ne tey mën a soppi li nga xam ne mooy caractère dëkk ba mu doog a tàmbali nag la jëm ci wàllu liggéey ba liggéey bi xam ngeen ne Seexal Xadiim comme niñ ko waxee liggéeyam ñaar la mooy li nga xam ne diggante ba ak boroomam rek la yoonu kenn newu ji nga xam ne digganteem ak boroomam la loola kenn yoonu kenn niwu ca ak liggéey bi nga xam ne nag moom lay liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loola itam séddali ko ci ñaari yoon comme ni mu ko waxee mooy liggéeyal ko ci dundal sunaam ak tasaare am njàngaleem ak yeesal risaala bi nga xam ne moom la ko sunu borom subhaanahu joxoon loolu nag mooy li nga xam ne bi mu agsee njaareem fa tabaarakallaahu loola ay anam yu bari la am na ci anam goo xam ne mooy gi ji ji jiitu te mooy liggéeyal yonent bi sallallahu wa sallam ci ay taalif bil mati wa salaati alayhi loola mooy liggéey bi nga xam ne maanaa étape ba mu dem bu nekk moom liggéey boobu fokk mu ànd ci waaye liggéeyal ko nag ci defar bindeefi yàlla yi loola bu ñu wax yeesal gi nag loolaa ci lan jàngal leen bañ xam li ñu war a xam waaye wëlbatiku yar leen leen defar leen bañ mel ni ñu war a mel ñaar yooyu muy jàngal leen bañu xam li ñu war a xam lépp ci lu leen sunu borom subhaanahu digal waaye walbatiku nag yar leen bañ mel ni ñu war a mel loola nag da caa liggéey liggéey bu rëy ci njaareem boo xam ne jéggi na dayoo ndax xam ngeen ne sëriñ bi léppam la ca ëpp lu muy santaane lu nekk comme ni ko borom xam-xam yi njëkk na jiitu waxe mooy li nga xam ne mooy xam xam awalu waajibin alal muridi tahsilu zaadihi min at-tawhid liggéeyu sëriñ bi ci defar nit ki mooy fexe ba mu xam li mu war a xam loolu moo waral ci xam gi it fokk nga am jumtukaay yoo xamee moo waral ci état bu njaareem comme ni ko kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo jiitu woon waxe e taalif na fa ay téere yoo xam ne yu ama am solo ci li nga xam ne moo di wàllu xam-xam surtout nag ci xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xamu maanaa at tawhid waaye ndax am na téere yu bare yoo xam ne gis ngeen ko bokk yi tudd nañ ci ab lim boo xam ne ci période boobu nga xam ne moom la nekk jaareem ci la ko taalif mu ci wàllu tawxiid ak yeneen xasida yoo xam ne dafa aju ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bokk na ca gannaaw loolu nga xam ne moom la ci taalif ci ay téere bokk na ca maanaa delloo si ci li caractère si madrasa jaareem muy delloo si daara ji nga xam ne mam la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawalan te a munawara te muy daara joo xam ne bi fi yonent bi jógee ba léegi dafa mel ni dafa raaf daara joo xam ne amutoon daa amutoon xalima gu ñuy bindee waaye daara joo xam ne góor yàlla yëpp Aboubacar Siddiq ca la génnee Omar ibnul Xataab ca la génnee Ali ibnu Abi Talib ca la génne Ousmane ibnu Affan ca la génne xaala rasulullah ju ngeen dégg ca daara joojee la génne mooy xam-xam ba yàlla def ci dënnam moom rasulullah bil wahyi awil ilham mu di ko sotti ci dënni ñooy nga xam ne ñoom la jàkkaarool ci ay jataay yu wuute daara jooju tey xaala rasulullah ju ngeen dégg ca la génnee Serigne Touba nag daara jooju lañ njëkk a delloo siwaat ci biir njaareem waxtu jullee bu nepp surtout diggante takku takkusaan gannaaw saan wala diggante timis ak gee mboolem ruwaadu masrabi yi ñi gàddaay ñëw fekk ci ku ñëpp ngir defaru góor maanaam ña cey ay ndaw ak ña cey ay mag ña jàngan ba jeexal lu bari ci ay téere xam-xam ak ña nga xam ne dañoo jàngal lu digg doomu ak ñu juttoon a jàng ñoom ñëpp daje fi moom muy tomb tombam yooyee ci wàllu fàndu xam-xam yëpp di leen ko jox ci ay misaal ci làmmiñu wolof yu leer naññi waaye di leen ko leeral ci anam bi nga xam ne tey ci lañ koy déggee muy jataay yu am solo yoo xam ne tey lu baree baree bari tey ci li nekk ci biir kàggu yi tey ñu di ko jàng di ci dellu danañ ci dellusi ci kanam tuuti ca jataay yooyee la génne woon nga xam ne na sahabatu rasul defaroo woon ca biir jataay yooyee seeni dënd peese woon ca dell noonu la ñoo wëran seexal xadim seeni jataay eh, peese woon ci wàllu googu waaye gannaaw ñoo ñooñu nga xam ne ñooy kuréel boobu nga xam ne ñoo mooy mooy mooy mooy mooy li nga xam ne mooy eh, taxawaay boobu nga xam ne mooy bu njëkk bi nga xam ne moom la aman ci wàllu jàngale yi ci biir liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amaat nag beneen taxawaay boo xam ne bu mu amaan ci wàllu tarbiya bi ci boppam muy jàngal nit ñi bañ xam li ñu war a xam waaye tarbiya leen ba ñu mel ni war a mel waaye ci wàllu tarbiya bi nag la ci jiitu mooy tàggat leen ci jaamu yàlla ak jikkowoo melokaan yi nga xam ne moom la ab julit war a mel mu def ko ci ñoom waaye tàggat leen nag ci maanaa liggéeyal yàlla muy xitma ci bindeef yi waaye tàggat leen ci lan maanaa kasbul alaal mooy fexe ba fagg lu lew loo xam ne danga ci mën a sukkandiku sàmm sa diine ak sa ngor ba doo dépendre ci kenn ñeent yii ci la sëñ bi doon tarbiye ñu ànd ak moom bi njëkk ci bi nga xam ne moo ci njëkk nag et comme ay catégorie la woon ci ñu fa ñëw kenn ku ci nekk gannaaw tàggat gi ci jaamu yàlla ak defar jikko yi dafa am xitma bu mu la doon defloo bu fekkee ne ñi nga xam ne ay doom doomi soxna lañ jóge ci këri diine yi nga xam ne ku ci agsi bi ngay ñëw fekk na jàng alxuraan ba mokkal ko jàng xam-xamu diine itam fa tabaarakallaahu ba lañ ci war a jàng lépp nga jàng ko ñooña ba mu ñëwee liggéey ba mu leen doon liggéeyloo ci wàllu ci wàllu sàmmonte sàmmoonte ak sàmm ndono li nga xam ne mooy ndonal islaam li mooy la ci jiitu woon loolu moo waral mu amante lim boo xam ne ñoom jàng alxuraan képp la leen doon def loo waaye wax leen nag alxuraan ji ngeen di jàng mu nekk wirid na ngeen ci tasaale sunu borom subhaanahu wa tasaare lislaam ci réew mi ba lislaam ndot fi nekk fi diina ji nga xam ne mooy nekk diina ji not waaye defal réew mi jàmm ba dara loo xam ne luy indi aw ay ak i ci biir ñi dëkk ci biir réew mi du ci am loolu leen santoon sëñ Mate Lamine nee na ñu saxal muy groupe boo xam ne ñaari kaamil lañuy saxal suba bu ñu jëlee suba benn kaamil buñ ñu jëlee tisbaar benn kaamil bu ñu jëlee takkusaan ak juróom-ñaari kaamil bi su àjjuma waaye mu sàkkaat beneen groupe boo xam ne nag seenu liggéey lépp lu mu doon muy de muy muy dundal ndono li nga xam ne daanaka boo génnee Sénégal beneen réew doo ko fekkaat ci dund alquran ak sàmm ko muy xam nga bokk na ci aada yi Sénégal ak ndono li yàlla defal mokkal alxuraan wëlbatiku bind ko te doo ko gis mu sàkk équipe boo xam ne pour saxal ndono loolu ba mu nekk fi amuñu benn liggéey lu dul loolu kaamil yooyee mu di ko jël di ko terale ganam yiy jóge ci kër yi di ko setti waaye mu amaat muy groupe boo xam ne fa tabaarakallaaw mbooloo lañ mu takkuwan moo xam ne danañ ca bokk na ca ña ko jiiti woon sëñ ma jëmb si la eh, ak sëriñ Mor Alima Guèye ak maanaam mos eh, kii eh, ak ak ak mbooloo mu bare bare bare moo xam ne Mapatib Lo ca la bokkan ak ñeneeni mbooloo yu takk yoo xam ne loola rek moo doonoon seen liggéey muy bind ay kaamili alquran waaye mu amaatan nag beneen groupe boo xam ne ñëpp war nañ leen di ñaanal ndax bari na loo xam ne buñ ca jotee ñoo na ko jox xam ngeen ne Seexal Xadiim mboolem li mu taalif lépp ñu naan ay téeméeri téeméer la lépp ci loxol boppam lii la ko bind moo xam ci bi mu nekkee ci géej gi wala bi mu nekkee gànnaar walla bi mu nekkee céyeen waaye ànd ak loolu lépp tey néew na nga gis ci public bi ci sunu biir nun ñii benn xasiida képp boo xam ne Serigne Touba ko bind min min ca bidaaya ba ci ni aaye muy téere xasiida gu mat boo xam ne Serigne bi moo ko bind wala téere xam-xam lu waral loola Seexal Xadiim dafa jëlan équipe boo xam ne ci doomi soxna yooyu daf leen a tànnan bis benn bu nekk mu jël ab lim bu takku ci téere yooyu ñoom la wóolu ci seen sell di leen jox ñu di ko sotti luñ ci sotti ba noppi delloo ko day bi mu téye ko la ca des nag euh, mu mu la ca des nag mooy la nga xam ne tey bu it ak mu àllafaat yooyu tasaaroo loola moo ko fa andi ndax lam bindalan boppam moom daf koo téye waaye équipe boobu nag ñoo doon sotti téere xam-xam yooyu di ko indi loolu équipe bu mag la boo xam ne bokk na ca ñamu tànnan di ko def sëriñ Masamba rakkam ca la bokkoon sëriñ Babacar Sill ak sëriñ mu Amadou Zeynabu mi ñu doon nettali ñaari doomi sëriñ Mirina Sylla ca lañ bokk sëriñ Mor Mbàkke doj ca la bokkan sëriñ Mor Mudu Mor bu mbàmp na ca la bokkan waaye sëriñ Madu Xëri ñagit ca jooj ca ñoom tànnan la ak ñeneen ñoo xam ne amuñu woon benn liggéey lu may sotti loolu nga xam ne sëriñ bi da ko bindan ci loxol boppam waaye yëmut ca loola yeneen téere xam-xam yi nga xam ne dafa raaran lool tamu di ko sàkku di ko wutlu gànnaar ak ci réewu arab yi loola lum ca masaa am ba noppi day digal ñooñu ñu sotti ko yeneen doomi soxna yu jóge ci kër këri diine yi te amuñu ko mu di leen ko jox muy liggéey boo xam ne bu aman solo boo xam ne équipe boobu dañ ko def waaye mu amaat équipe beneen boo xam ne eh, liggéey bañ doon liggéey bu yéemoo yéeme la muy loolee ñu doon bind muy kaamil yi dafa aman beneen warasa bu fa nekk boo xam ne ci doomi soxna yi ñoom xam nga lu ñuy liggéey defar daa defar daa ak xalima ak sàttaar parce que xam nga xalima yi yiy bind kaamil yi ñetti xeeti xalima la xalima bi nga xam ne mooy bind yax bi xalima bi nga xam ne mooy bind maas ak xalima bi nga xam ne maanaam diggante eh, laayee fi ñu yam ak arab yi nga xam ne dañ ko war a xëcc ak yi ñu war a xëcc muy màndarga yooyu xalima ba ko cey def xalima benn bu nekk dafa aman daa loolu dafa aman mbooloo moo xam ne loolu moo doon seen liggéey équipe bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi doon liggéeyloo te seen xitma ajiwan ci sàmm li nga xam ne moo nekkan patrimoine culturel islamique bi nga xam ne eh, moom la réew mi ak yoon wi aman wax nañ leen ne ñi jiite woon ña doon bind kaamil yooyu muy sëriñ ma jëmb si la cheikh mahamad bachir siise ibnu jaaxa siise ak cheikh mahamad zeyn ibnu ahmad ahmad ibnu taya nekk benn mauritanien ak cheikh ma fatim loo ak cheikh moor alima gueye ñii ñoo doon jëwriñu ñi sëñ bi doon liggéeyloo ñiy bind kaamil yi waaye bu dee ñi nga xam ne nag ñoom laay wax ne ñun war nañ leen di ñaanal bu baax ndax xasaayit yéeg téere xam-xam yéeg yépp ba agsee ci ñoom ci barkeb seen liggéey booba la ndax sëriñ bi lim bindaleen ci loxol boppam ñoo ñu la ko daan jox ñu di ko sotti muy téye day ba lañ sotti mu jox ko sëriñ ma sàmba mu téye ko ba loola moo tasaaroo ba agsi ci nun ba loolu moo waral dana jafe lool ci pénc mi nga gis fi ak xasiida wala téeref xam-xam boo xam ne sëriñ bi moo ko bindal boppam la tàmbalee ca bopp ba mu jeex te sëriñ bi de amutoon secrétaire ba mu nekkee gànnaar ak ba mu nekkee gabon ak bi mu nekkee ci yéen lépp lu mu taalif wala mu bind ko ci xam-xam ci loxol boppam la ko bindee waaye nag ñooñu mu tànnan muy ay doomi soxna yu mu wóor yu sell ñoom la doon bind looloolu waaye li yéeme lool mooy équipe bu mujj bi moom laa toll wan nga xam ne ñoo doon fabriqué xalima yi waaye ñooy fabriqué daay e, ñooña liggéey bu am solo lañu doon liggéey ci loolu e, bokk na ca sëriñ du Kane doomi suñu Mor Warxa Kane ak sëñ Modou Dieng doomi sëñ Wajja waaye ak sëñ Bassir Antama Jama doomi sëñ Bamba Sill ca Taïba Dakar ñooñu ñoo daan jiite woon équipe boobu nga xam ne ñoo daan defaral ay sotal ay xalima muy ñetti xeeti xalima yooyu ma leen wax sànq ñiy bind alxuraan ji ak ñiy bind téere xam-xam yi waaye ñoo daan fabriqué daa yi suñu ma sëriñ Anta nee na ma xob yi ñu daan fabriqué daa yi am couleur sëriñ bi moo leen ko daan jox ñu dëbb ko def ko sunguf di ko composé ba mu jox leen couleur bi ñu bëgg loolu lépp tey bokk ci li nga xam ne wax dëgg yàlla ci suñu culture la mais malheureusement ñu baree baree bari maanaa euh, xamuñu ko xamuñu ko te su mu nekk loo xam ne ci biir suñu patrimoine culturel la ñooñu nga xam ne ñoom la ñoom la doon bindloo itam di ay nit ñu sell sëñ Modou Habib tudduma ko woon sëñ Modou Habib et bu Cheikh Ibra bokk na ci ñi dàqana bind ci ñooñee nga xam ne ñooy équipe boobee ak sëriñ Mbay Sill ak sëñ Mouhamadou Zeynabu di doomi sëriñ Ngirina Sill e, ak sëriñ Moussa Alima Gueye sëriñ Mor Mbacke Doj sëriñ Modou Mor ak sëñ Modou Khary Niang ak ñaneen ak ñaneen ñoo xam ne ñoom ñoo féete woon liggéey boobu waaw waaye nag mu amaat beneen équipe boo xam ne eh, moom laa doon wax danaa ci dellu siwaat jataay yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi doon def ci xam dafa aman ñoo xam ne ñoo daan wër sëriñ bi di enregistré loole nga xam ne moom la daan wax ci wolof parce que sëriñ bi njàngale moomee ci ay tomb la ko daan def ci wolof waaye dafa amoon beneen équipe boo xam ne ñoo daan jël loole di ko bind ci arab bu ca ngoon gaa wala ca suba sa ñu gaaral ko ca lu ca mat soppi ñu soppi ko ñooña bokk na ca sëriñ bu laay busa nee ñu moo ca ëppal sax lu ma dajale waaye lakk gi moo ca jël lu bari waaye nag bokk na ci ñi ca gën a siiw muy sëriñ maxtaar bintaloo ak bàyyi sëriñ sill ndula di jarbaatu sëriñ bi baay sëriñ sill moom lam ca jot a dajale moom Eh, dajaleel ko boppam xam ngeen ne sunu jarbaat sunu rakk Abou Madiane kebe moo ko tax xiir tartib ko muy classé ko par domaine par chapitre génne nañ ko moom lañ tuddee moom lañ tuddee jawaami ul kalim waaye sëriñ Maxtaar Binte it xam ngeen ne Cheikh Abdoul Ahad bi mu taxawalee bibliothèque bi te toll ci moom it jëmee ab liggéeyam ca jataay yooyee yëpp la fa sëñ bi sotti woon ci xam-xam yëpp muy dem ci dënni mag ñi mu des ci ñoom wala seenu njaboot pour di ko dajale lam dajale ca sëñ Maxtaar Binta loo moo jiitu ci maj moo ab bi nga xam ne moom lañ njëkk a dajale te raw Rawdu Rayaahiin classé ko moom it par domaine taxqiq ko muy loo xam ne tey trois saqaafi yu yi la boo xam ne xeeti xam-xam yëpp yëpp da ko ca fekk te ci biir jataay yooye la aman sëriñ bi yëmutoon ji di ko joxe noone waaye dafa aman ñu ko wëran ñu ko doon bind ci arab ba loolu moo tax tey ñu bari mën cee jot buy liggéey bu am solo e boo xam ne fa tabarakallahu dafa nekk liggéey bu rëy waaye teewul mu amaatan beneen équipe boo xam ne mooy xasaayid yi xam ngeen ne xasaa it sëriñ bi dafa xam ne jàng ko ak déglu ko ñooy am ab atte mooy tiim ko di jàng wala nga ubbi sa nopp di déglu ko koy jàng gis ngeen sëriñ Saaliwu li ëppan ci wirdu xasaayam déglu la woon mooy diggante timis bii ak la daan am ay kuréel yoo xam ne kenn du wax ku mën a ñëw da ngay ne teg ñu am ay groupe yoo xam ne daf leen di déglu parce que loolu dafa bokk ci sunna sëriñ bi ñam doon jàngaloo xasiida maanaa daf leen doon déglu ndax déglu gi dafa am lu muy def ci nit ki loolu moo waral sëriñ bi tànnan nag ñu am solo ñoo xam ne ñoom la tànnan ñu di ko jàngal xasiida bokk na ci eh, doomu nijaayam muy sëriñ Afi Busa Eh, bokk na ci sëriñ Mor na Mbàkke bokk na ci sëñ bu na Fall eh, ak Cheikh Mahmoudane Fall muy ñaari Mauritanie ñaar ñoo xam ne seen d'origine mauritanien la waaye gannaaw bu loolu jàlle itam e dafa amaatan beneen équipe nag boo xam ne ñoom it ci seen ma mooy yoral ko li nga xam ne mooy mooy mbirum boppam moom sëriñ bi ci boppam nga xam ne mën nañoo wax ne mooy staffu sëriñ bi sës si moom te ñooña xam ngeen ne Cheikh Mouhamadul Bachir doomi boppam ji ak Cheikh Mouhamadul Lamine Diop ñi nga xam ne nag ñooy nekkan ay bëkk néegam te sëriñ Maxtaar Silla bokk ca waaye sëriñ Saïd euh, euh, euh, Sall bokk ca waaye sëriñ Saïd Mbàkke itam bokk ci ñi nga xam ne ñi gën a da jege sëriñ bi la ñoo nekkan bëkk néegi loolu mooy ñi mu doon liggéeyloo ci xam-xam ñu ñëw nag ci li lool mooy baneen équipe bi nga xam ne moom la doon liggéeyloo nga xam ne seen tarbiya moom ci wàllu xitma la ak ci li nga xam ne mooy liggéey waaye ci lan la leen doo liggéeyloo xam nga sëriñ bi nee naa la milieu bu mu mas dem bu ne day tenir compte ci réalité sociale ya ñi nga xam ne ñoo nekkan mbakke Kajoor ba Mbàkke Bawol ba Daaru Salaam ba Tuubaa gannaaw tërbiye ga ci jaamu yàlla ak def ci ñoom jikko yu baax liggéey ba mu ca boole woon pour jàngal leen ca nañuy def ba faggulu lew ba mën a sukkandi si bopp mooy mbay la woon waaye bi mu ñëwee njaareem nag mu nekk nag loo xam ne mooy capital maanaa départemental bu Bawal serkal Bawal nekk fa ah muy ay taax dafa tenir compte ci loolu li njaareem di yaatu yaatu suuf su yaatu wër ko kenn mënu laa wax ne daara sëñ bi dañ ko daan bayal fee daara yi tarbiyee nekk fa daara ji ay atelier la woon ci biir kër gi ñu deen fa tàggat ci lu ñu tudde formation professionnelle ban atelier moo ci jiitu woon atelier cordonnier ga muy Coudé ga Coudé ga ñan ñoo ca nekkan sëriñ mu Amadou Mamoun moom la am Cheikh Anta sëriñ moo sëriñ ma Massamba Diop ak ñaneen ci ay doom doomi soxna te sëriñ As Guédé moom sëriñ Modou Mamoun moo ma nettali fi kanam sëriñ Moustapha Lay ak sëriñ Moustapha Diatara ca ca New Jersey may wax xisa bii mu ne ma kaay sa nijaay wax la ci loolu kenn du ko dindi mu ne ma damaa nekk ci taw fiix dëkk sëriñ Modou Mamoun nee na ab wuude bu jógee njaareem ñëw jox ko ay dàll nee na mu xool dàll yi ba àggal teg ko ne ma aas dugal ci néeg bii ubbi gaal gii fi nekk am na gaal ko fa nekk jëlal dara ja fa nekk ak kaala gay wékke ca lal ba indil ma ko mu jox ko ko ak lëf ci xaalis mu wan ko gannaaw mu dëppër ci dàll wa ne ko aas na kii maa ko dàqa dagg aw dàll dàll wi ma daan dagg muy cut la maraa kis wa nii nii la nii laa ko daan daggee ba nga xam ne baaraamu baaraamu baaraamu dëy bi du lemu mu ne ko nag bu dee maxtume muy maxtume mii sama bokk yi di kii ta sëñ Abdou Lahad delloo si ko mu ne ko sëriñ xaas mu ne ko bu dee jaafara nag gi def téere yi sëñ Massamba Diop Samb waaw ak karbat bi nga xam ne moom la sëriñ bi di sol dang jël dang euh, euh, maanaam la nekk ci suuf di nuru aw dénk atelier ministère yi baa koy def danaa ñëw waaye dar way nekk ci ñoom ci atelier boobu lañ ko doon liggéeyee ne sëñ Modou Mamoun ne nekko as ah, mbaatu da jàpp ne loolee ñu daan def maanaam ay der yu ñu lëxunde jox na ko lañ daan déedéet gàtt yañ daan rey ci kër ga muy nag ya ak xar ya moom lañ ñu daan jox noo koy lëxundeel suñu bopp liggéey ci liggéey bu toll nii mu ne ko man dàll yu ma daan dagg muy marakis suñ bi dawul sol marakis waaye kilifa yi diine yi daan ñëw di ko seet si la mu leen daan jox ci ci ci ay hadaaya lool la woon muy benn atelier atelier boobee ku ñox euh, saa xewar taal lañ jëli woon moo leen ko doon jàngal benn góor bu wuute ba ñu jeexalee seenub liggéey pour équipe boobu deuxième équipe ba kan moo ko jiite sëriñ Mbay Sëy teneeful bàyyi Mahamadan Sëy mii di jaay ay téere ci buntu kër sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mortala te doomi soxna la jóge ngan sëy bi ko bàyyam di jébbale ñaari kamil alquran la indaale ñu jox ko sëñ sàmba waaye bi ñu sañcee daaru Karim ak dégg jam ko mu nekk jëw ñi jàmbaare lool déggu metti gu ànt ak tooke jam ko sëñ ma ne nekkoon yow demal ca kër ga ba déggi wér léegi nag uude ba nga xam ne bu atelier bee kee moo continué wan di defar jaxu fara mu boole ko ak moom mujj bu defaree muy defar ba mu mujj bu sëñ Masamba yóbboo mu ne ko ah sa waajir xanaa sëñ bi ne ko sa xanaa loxo bi daa ko dafa mel ni kii mu ne ko yii danaa mel ni ndake wóote eh, sëñ mbay sëy moom mais moo def mu ne ko mbay sëy sa mu ne ko de na na dandu si pii muy deuxième atelier boo xam ne tey ay doom yi soxna dong ñoo ca nekkan sëñ bay siy tënifal moo tax dan sëy bi boo waxee mën a amat kuuri gi daa ko doon waaye deuxième atelier ba nag ah mooy buy menuiserie ba nga xam ne armoire yi ak gaal yi sëñ bi di denc téere yi ak lépp ñoo ko doon liggéey kenn moo ko jiite woon sëñ Mor Mbay Siise na jaar ànd ko ak sëñ Cheikh Patak ko bokk na ca ña ca gën a ràññeeku suñ Modou Dior Amar doomi suñ Paate Amar Cheikh Amar a ngi fii ci kii bi nee na ma nee na ma bokk na ca maamam da daan def bu bu wàccee am lu muy bokk ci ab liggéey boppam di ko jaay di ca am aslëf ba yàlla dogal loola ab ay ab lal bokk ca yu rafet mais bam ca defaree ba am ay commerçant yu ko jënd mu jënd ci aw fasu naaru góor bu baax andi ko ci kër ga sëñ Paate Amar ne baayam gis ko ne ko waaw ko moom fas yi mu ne ko man mu ne ko ah foo ko jëlee mu ne ko ah, dama daan def ba ma wàccee kat li ma daan faraatu di liggéey rek ca laa amoon ay lal jënd ci mu ne ko laa ilaha illa xanaa xamoo ne taalube bu nekk ci kippaaruk sëriñam di tarbiyewu ak a wut ngërëmal yàlla mook jaam bu nekk coroon ab sangam ñoom amul dara mu dara laggal jox fas wi jox fas wi addiya loolee atelier boobee sëñ Cheikh Fatakko nettali na ma man ak Khadim Diop 1971 ci ci Touba ne maanaam moom itam du caagee ni ay dénk yu ñu traité lañu leen daan andil déedéet dafa am mbooloo moo xam ne ay ay buuti garab la ñuy dagg andi am na beneen équipe boo xam ne ñoom ñoo koy dagg roboote ko ba mu ratax ñu jël diw bëtteen diw bëtteen diw coton ne moom lañ ciy diw suul ko un mois ci weer ne mooy tax buñ ko suulee du am ay xar-xar muy atelier boo xam ne bu nekk foofu ci biir kër ga ak beneen atelier boo xam ne romb jaan la ñuy defar ak basang ak tóoj romb jaan ak basang ak tóoj akum njoowaan kan moo jiite atelier ba siñ Mortala Fall moo maam Cheikh Ibra Fall ak sëriñ Mat Diouf bu sëriñ Aliou Diouf Lambaye ak ku ñuy wax Madoun Fall ak Malamine Ndiaye ñii ñëpp ca ña ña nga xam ne ña ña ña ña yoroon euh, euh, euh, atelier boobee nga xam ne mooy e warasa boobee Mbadun Fall ak Malamine Ndiaye ak Demba Kebe waaw Demba Kebe Mbadun Fall Malamine Ndiaye ñoo àndan ak ñii Sëñ Mor Talla Fall jiite atelier boobee muy loo xam ne kon lu yéeme la ca biir kër ga muy ay atelier yoo xam ne muy li ñu tuddee formation professionnelle ndax sëñ bi dafa tenir compte ci loolu muy loo xam ne sëriñ bi daf caa régler problème boo xam ne société bi da ko doon dund muy ay métier yoo xam ne ñi ñuy tuddee ay doomi soxna muy njabooti këri diine yi ak doomi buur yi dañ ko jombale woon seen bopp ba ku koy def ku nekk ci tabaxatu suuflaa mooy ci ñi gën a xeebu lañ lay boole te muy métier moo xam ne mel na mu ci nekk ab yonente def na ko métier yonente la wama ah, ah, muy loo xam ne tey benn bu nekk ab yonente def na ko benn bu nekk góor yàlla gu mag def na ko Cheikh xoolal Cheikh Abdoul Aziz da baax bi ñu tuddee Alaaji Abdoul Aziz bii xam nga am na ñu wax naa daa baax la defee ne baax gee déedéet Cheikh Abdoul Aziz da baax yooyu ab wuude la woon di góor yàlla goo xam ne góor yàlla yëpp a naw naw sufiyanke bu mag boo xam ne loolu la doon métier ñu doog Cheikh Abdou da baax da baax mooy ab ab kii ab koo xam ne ci dara lay yëngatu loolu lépp kon sëriñ bi delloo si loolu nga xam ne mooy aada yooyu nga xam ne moo aman ci di maanaa eh, kii nit ki ci ay métier ak yu mel noonu te métier nekk loo xam ne eh, luy développé am réew la di développé ab société góor yàlla yu baax yooyu yëpp E kenn ku ci nekk jaaraan ci yonente yi kenn ku nekk mécc woo loola kon moo waral mu jël ñii di ay doom yi soxna yi ko gën a jege di njabootuk boppam gi def looloo leen loola comme ki nga xamee ne noonu la dindee laneen lu xewan muy ñooñu nga xam ne am na ci ay famille yoo xam ne tey ci biir société ba boo ca masaa bokk muy ñi ñi baaxoo woon a def métier yii doo doo jàng parce que lu tax doo jàng wala doo sori ci jàng parce que dañuy wax doomi diw kët am njàngam man naa bañ a sori ndax lu yàgg-yàgg ca mbaar ma lay mujj loo yàgg-yàgg lu sa ëlluwa sori sori kenn du la def imaam kenn du la def njiit ci wàllu diine kenn du la tuddloo te loolu lépp de loo xam ne ay aada yu wuute ak diine Serigne Touba ñëw waa ne waalam bi annama tafawutul wala bil ilmi wa diini yakunu fasbira nit ñi lañuy ñuy gënal te fa yàlla du aw askan woo bokk aku sant waaye mooy li waaye li yàlla digle nga fexe ba xam ko gannaaw boo ko xamee nga fexe ba kenn du la raw kenn du la man ci jëfe ga nee na ca loola lañuy ñuy gënante wa bi ima yafdulu man xat fadla laa bintisaabi li man xat ixtala min jihatil ansaabi ummin wa abin fa fiihi majtahid ma at addu bi du caagee ne gënante ci wàllu askan ci ndey ak baay ah loolu moo tax sëriñ bay jaxate way ko ne li ngay sange say kem du wërsëg wu yaa du mbooloo du ab juddu lii far ko xam ci ak jub ak maandu ak def lu baax la nit daarawante ka sangay kemam sëriñ Moussa Ka ñëw ne di fekkan ku ñëpp xeeban ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko moog boromam mu fóot ba mu set tofal mbooloom boromam nga seet ne mboolem ñu nga xam ne tey dañ leen daan xeeb jàpp ne ñoo am cër ci diine na sëñ bi def lee da def dafa def maanaam ak aksi tànn fenn fu ci nekk ña gàddaay ñëw sekk seeti ko ca ak foo askan woo mën a yor defar na la ba nga defaru mu def ci yow lu tax nga mën a defaree mu boole la ak mbooloo askan yëpp ay seex yu ñu defar ba ñu defar boole leen ak mbooloo pour sëñ bi wane ne loole moo xam ci théorie du théorie kese waaye da koy wane ñu gis loolu lépp di liggéey boo xam ne eh, liggéey bu mag la boo xam ne sëriñ bi def na ko waaye ba maa ngi ci biir ñi nga xam ne ñoo nekkan ci biir kër gu mag gi génn gu ma kër gu mag gi de ñi nekkan ci biir kër gu mag gi ñii ñooy ñi nekkan ci biir kër gi am na ñoo xam ne ñoo yaran mbale ma ak duy band ya nga xam ne gan ñi ca lañ daan jëfandikoo duy satale yañ daan jàppee bokk di suñu nguur tasrif sugu ca la bokk même même mbale ma ña daan tame kii ba euh, euh, sëñ sëñ sëñ Mortala Fall bokk na seen seen jëwriñ moom duubal kii la la doon waaye ak beneen atelier boo xam ne nag ah boobu moom Cheikh Mouhamadul Basir sax da cee bindu lu am solo mooy atelier bi nga xam ne baraag yi ñuy def ci biir baraag yeeg ak tappaat yi ak lépp ñoo koy def maanaam tappaati seng yi ak baraag yi ak néeg yi ak kaas yi sëriñ Mbàkke Juuf jiite ko ànd ko ak mbooloo mu takku nag sëriñ Basiiru nee na ñooñu moom sëriñ bi ci boppam moo daan ànd ak ñoom di jàng alxuraan di leen soññi nee na mbana yi kaw diri ak café gi ak xiiwal yëpp ñu dee leen ko jox te am na ci yoo xam ne sëriñ bi leen koy jox ci loxol boppam boole koog di jàng alxuraan topp ñoom di soññi parce que ñoom guddi lañ daan liggéey sëriñ Basiiru nee na amul genn guddi goo xam ne néew na te soppiwuñu ab euh, aw sàkket wala am néeg toxal ab néeg ca lañ daan liggéey muy ñëpp nga xam ne loolu lañ daan liggéey waaye la am solo ca loola Euh, ca biir liggéey boobu mooy aada jam ca dindi dëppale ko ak li ñuy wax sunna xam nga bokk na ci sunu aaday réew jàmbaar buy liggéey ba yaram wa tàng day kañu kañu lan tudd njàmbaaruk maamam tudd njàmbaaruk baayam comme def ci mbër yi bakku sëriñ bi nag dafa dindi aada jooje kañu ba mu def ko di wax di jàng xasiida wala di wax laa ilaay liggéey boobu yëpp tey loolu daaree tër bi yëpp liggéey bi dañ koy boole ak di jàng xasiida maanaa seen kañu mooy tudd yàlla nga xam ne liggéey bi dafay ànd ak jaanib rox yi ak jaanib madd yi nañuy liggéeyee ca loolee dañ koy boole ak di seen bopp ci di jàng xasiida loolu mooy la amoon ci waaye ñu ñëw nag ci atelier ummahatul muminat ummahatul muridina ak ñi nga xam ne mooy muridaan mooy atelier soxna ya ah. boo diggee ci biir kër soxna yi muy ñoomit it Serigne dafa dafa dafa bokk ci liggéeyam e taxawaay bi góor war a am ci lislaam ci dund ak dundal ko ak jàngale ak jàng ak jàngale Serigne Touba dafa wax ne moom la jigéen ji war a am alquran wax na ko inal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminat moom jeex man amila saalihan min sakkana un sa wa muminun yenn nuhyiyanna hayaatan tayyiba ba ba aaya ba jeex loolu moo tax sëriñ bi nag daf ko appliqué soxna ya nekk ci biir kër ga dafoo xam ne seen liggéey bi jiitu ci yéen mooy tout tànk yii ñu ma jox te ñuy ay jigéen wala ñu jox leen ko ngir ay jigéen ngeen jàngal leen ba ñu xam li ñu war a xam xamee seen i farata ak seen i sunna waaye tàggat leen ci jaamu yàlla ak def ci ñoom jikko yu baax la ca toppaat mooy liggéey bi jigéen baaxoo def ci biir kër ngeen tàggat leen ca waaye bu loolu jàllee nag loola am na lum ca teg mooy as góor bu góor ci dara wuti lu mu góor leneen lu ngeen ca mën a dolli ci loo xam ne du yàq liggéey bii ma wax te yéen man caa am li ngeen di faje seeni soxla bopp may naa leen ngeen def ko loolu moo waral ay daaraa ci aman ñoo xam ne alxuraan rekk la ñuy jàngale ca soxna ya ak ñoo xam ne xam-xamu diine la ñuy jàngale bokk na ci soxna Fat Jaxate way juru soxna sëñ Saliou bokk na ci soxna Aminta Amar bi lu jiitu muy dem kër sëñ Masamba bokk na ca soxna say Mbàkke moom sëñ Mbàkke Ibrahima dañ daan jàngale le tàmbalee ci ris eh, laxdar yi ba ci risaala ba ci téere yu mag yi xeeti xam-xam yëpp dañ ko daan jàngale foofu ci biir kër ga waaye nag na atelier amee fee lay atelier amee woon fooy fee muy ñoo xam ne dañuy suub ñi di rablu am na ca soxna yoo xam ne dañoo recruté woon ay ràbbkat wëtteen wi ñuy indi te sëriñ bi daa leen ca sédd saa bàjjan yi ñoo koy décortiquer grain ba moom lañuy segal diw ga ca la ñuy jox atelier be ñu euh, diw wëtteen ga atelier boobu moo xam ci lañ jox la ca def mu nekk rëndaay waaye la ca def ay poqe lañ ko def jox ko ràbbkat ya ñu dañ ca def ay sor ay sor muy balaa ndi rabal am ca ñoo xam ne dañuy yónnee ca biir taax ya ay koto fii si koto piir dagg ko ay coupon ca soxna ye muy soxna amit te jobbe ñoom di ca di ko suub rombal palmaan baxa loolu lépp nag li ca neexan mooy clientèle ba génnutoon kër gi nee ñu sëriñ Issa Jenn sëriñ Mat Jigal ak sëriñ Balla Fali ak sëriñ Aliou Touré nee ñu ñeent ñii ñooy seen clientèle bi kii ay ay ay gaal lañ ci daan kii commandé pour soññi soxna yi ci liggéey bi ñuy def nga xam ne tradition boobu dem naa dem a dem ba am na bindikat gëstukat yoo xam ne jamono yooyu Jurbel kat maanaam lu mat cinquante cinquante pour cent wala lu ko ëpp ca la ñuy sol ci biir kër gu mag lañ koy fabriqué ba léegi ko xam Jurbel tradition boobu jugu fa néew na kër goo dugg te fekkoo fa ab rab kuy ràbb loola ba mu amee am ca leneen lu amaat loo xam ne sëriñ bi lépp la jàngale ñooña soxna yi soxna maam Aminta Amar moom ma ko nettali de moo ma ne lii de doom tax na ba góor ñi mënuñu woon ci sas yiñ daan tobbi mu ne ma nit ak juróom-ñett yiñ sa sayoon ci jumaa ji bisub tam xarit sëñ ma sàmba sa maam mu ne am ah, mu ne ma kenn ñemewut a ñëw ci nun te sa nit ak juróom matut te ca liggéey boobee lañ ko doon amee loolu moo waral kenn ci ñoom muy soxna Faati Xujja way juru soxna benn ngaabu ngaabu la nekkan ñëw gis bokkam yii li ñuy def ak liñ man mu ñëw ci sëriñ bi ak suba ne ko ah Mbàkke man kat sama bokk yii yëngatu bi ñuy yëngatu ba lépp lu ñuy def ci lu baax loo santaane góor ñi mënuñu leen ci bëggan naa kat boo ma ko sañee man ah ma am ndigalul yëngatu sëriñ bi jël lim bu takku ci xaalis def ko ci mbuus ne ko boo demee Fatima xaaj ko ci digg bi lenn bi nga jënde ko ay ganaar ak jur gu gàtt ay xar ak i bëy li ci des nag nga wut ay band nit ñi wut ñu lay rabbal ngay boole rablu ak suuf ne ko nag lii ma la wax boo demee ba am ca tono joo xam ne man nga caa sukkandiku te yéel tono ja liggéey ca tafatima delloosil ma ndey ji mu yor ko at ak genn wàll am ca tono delloosil ko ndey ji sëriñ bi ne ko Fatima dama la doon wan aw yoon bool delloo ko boole ko ca liggéey boobu xoolal mooy investissement yi ñuy wax tey te loolu ki ko nettali dund ko muy soxna Boussa Diop mi ngi fii ci Daaru Xuddoos mooy way juru sunu mbokk sëriñ Moustapha Diop naagagut ba léegi bëkk démb bi am na ko ma fa yabala ne ko maanaa muy soxna Boussa Diop way juru sëriñ Moustapha Diop njekk bokk na ci ñu dund ak loolu ak soxna si nga xam ne kon sëriñ bi amul dara loo xam ne lu mu bàyyi kon lii mooy nekk liggéey bi nekkan ci biir kër ga ñu doog a ñëw nag ci fi ñuy kee ca liggéey ba nekkan ci biir kër ga nee naa leen góor yàlla yooyu mu jëlan ndax sunu borom daf koo rafaatale lam joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala si ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin ay kàngam yoo xam ne ñoo ko doon jàppale ci liggéey bi bokk na ca e sëriñ Afiya rakkam kooku moo yoroon lépp lu jëm ci mbiri diine ahwaalu saxsiya mooy tudd doom yi mooy takk sëy yi mooy miraas mooy jule néew yi kan sëñ Bala Coro moo yoroon lépp lu jëm ci diggante administration jaaran diggante administration bi ak ñi nga xam ne mooy population bi waaye nag mu tànn ñoo xam ne gan yi nga xam ne ñooy jóge ci kër yi diine yi di ñëw te sëriñ bi di leen fi téye ak doomi soxna yi nga xam ne dañuy siyaare si te amuñu fi kër gan ñooñu maanaa kilifa yooyu ñoo leen di dalal bokk na ci sëriñ Balla Fally Dieng sëriñ mu Mouhamadou Ndoumbé sëriñ Mbacke Jaxate ak sëriñ Makhtar Bintaloo sëriñ Daaru Assane Ndiaye ci kër Soxna Fatja ndax moo dëkk woon Soxna Fatja moom la jox kër Soxna Fatja gii mais kër sëriñ Daaru Assane Ndiaye la ñii tey ñoo féete woon di dalal gan ña waaye da caa boole woon yëmutan ci loola dafa tànnan ci seen biir ñoo xam ne ñoo doon def li ñuy wax médiation sociale mooy waxtu wu réeroo amee ci diggante bi da wax na bu ñu dem ci tubaab bi ñu di leen atte buñ xaar ba ñuy dem ba ñooñu di ci am aw yoon lu ci war a am nañ ko atte fii ñooñu sëriñ Daaru Assane Ndiaye moo ci jiitu woon sëriñ Omar Mbacke Gelongal ak sëriñ Maxtaar Bintaloo nga xam ne sëriñ bi lu ci nekk daf ko organisé woon waaye mu nekk loo xam ne loolu mooy la xam ne moo aju ca ca wàllu ca wàllu ca wàllu liggéey waaye mu amaat beneen liggéey boo xam ne e, aju ci wàllu xam-xam bu aju ci wàllu xam-xam doon nañ leen wax léegi voilà doonañ leen wax ci wàllu xam-xam am ñoo xam ne xam nga xam-xam bi ma njëkk na wax moom daara jëm yoroon boppam la muy daara jëm duppee daara yonte bi waaye nag ci wàllu xam-xamu diine sëriñ ma sëriñ ma dem wuubee la nekkan fii fii sonaateel bi nekk daan yoroon fi daara joo xam ne bu xëyee julli fajar ba midi day jàngale waaye bu midi jotee nag ma dem ësër ca sëriñ Mbàkke bu sër di ko jàppale ca njàngale ma ndax sëñ Mbàkke booba bi sëriñ bi ñibbee njaarim dafa amatul jot te booba sëñ sëñ baaxir ñoom ñii ak ñooñu ñu ngi toll ci jàng mu ne ko nga wuutuma ci ñoom waaye biñu demee ba jëmmi jamono nag la ko sëriñ bi jëm jëli indi ko foofa jox ko daaree xam-xam ji mu ànd ak sëñ Mad Lamin Jóob ak Abdou Latif naaru gànnaar bi ñoom ñoore daaree xam-xam ya waaye nag mu jël ku demee ne sëñ Moodu Awa Njaay sëriñ Njaase Sise bàyyi sëñ sëñ Mor Mbaye Cissé ak sëñ Mor Alima Guèye ak sëñ Mor Alima Guèye ndax kama waxan pële ca mbind ma sëriñ Moussa Alima la maa juuman mais sëñ Mor Alima doon na bind waaye daa yoran daaray alxuraan ji itam waaye la yéeme ca liggéeyu sëriñ bi mooy ñii ba mu leen joxee responsabilité bii dafa digal sëñ mat jigal ak sëñ Balla Faali ak sëñ ma numbe ne leen ñii nga xam ne ñooma wuutu ci liggéey bi wuutu leen ci luy tax ñu bàyyi daara ji wuuti njël wala luñ yore seen bopp toppatoo seen njaboot gi bu mu am digal naa leen li ngeen di indi te mu jëm ci si man sama jëmm ji balaa agsi ci man na ngeen jaar ci ñooñu lañ soxlawoo lépp ci at mi ci ab dund ak loo xam ne lu ñuy toppatoo seenu njaboot ba duñ tëj daara ja na ngeen ko warlul ñooñu xoolal liggéey bu am solo boobu sëñ bi ni mu organisé woon maanaam njaareem ak ni nga xam ne noonu la organisé woon nekkin wa ci njaareem waaye bu mujj bi moo di yëngutoon ci loolu xam nga tubaab yi ba ñuy indi sëriñ bi foofu nee naa dañoo bëgg bu sëñ bi yendoo liggéey ba ngoon bu ngoonee ñu fanaane koo yàq ndax bu guddee cinéma yaak yëf yaak yëpp waaye sëriñ bi fexe woon ba njaareem gépp nag comme ni ko sëñ Mame Lamine Diop nettalee fenn fu ci nekk bu guddee kuréel ya kuréeli xasiida yi ña ngay jàng di anime waaye digal na it mboolem taalibe yi ak seex yi nañ fay yóbbu ay teraanga yu bare bari façon ñam wu nekk ñu di ko fa yóbbu façon naan yu nekk ñu di ko fa yóbbu bu ko defee ña jóge ca làmb ya ña jógoon ca làmb yi mbappat ja buñ jaaree foofa dégg xasiida yi jaar fa tabaar fa kàlla afra yaa ngi nii beña baa ngi nii meew maa ngi nii lépp nga fa ñu toog xam nga boo toogee déglu xasiide yi mu neex nga ne ah ca ëllëg sa nga dellu siwaat ndax teraanga ji ba mujj faf nga toog ba mujj sax nga bàyyi làmb ji ab lépp sax faf e, jébbalu bokk ci bàmba ji nga xam ne loolu liggéey la boo xam ne sëñ ma Lamin nee na amul benn bu guddee nee na benn benn gox boo dégg déggul xasiide yu ñëw mujj maanaam ña nekkan ca foofee dañoo mujj bàyyi pomaak làmb yaag Sénégal yépp nag parce que ceetaan mi fii moo tax ndax fii moom dalay dalay dalay tax siya ci ruu mais tax siya la ci sa biir te léeg-léeg sax fa tabaarakallaahu ñu bokkal la dara loolu muy liggéey bu rëy boo xam ne tax na ñu baree bari ci ñooñee ñëpp dugg ci biir islam te jaaree ko fii muy liggéey bu yaatu bu rëy boo xam ne sëriñ bi liggéey na ko ci njaareem boo xam ne kon mooy ramoo ma siri ja léegi nag mu am loo xam ne fa tabaarakallaahu fokk nag yéen sama eh, bokki daara yi moom lañuy jeexale da ko gis ci nubsatul mubaaraka loo xam ne dafa nekk sunnatullahi ci kaw suuf muy ci fukki at yu jëkk yi bi mu jàllee ci njaareem ci at yeneen yi muy juróomi at yu mujj yi dafa am ñoo xam ne tuwaab yi day leen infiltré woon ñu ñëw ak ñoo xam ne ni njaareem demee woon nga xam ne xiiwal yi ak teraanga ji fa tabaarakallaahu fu ne rek foo wëlbati ko rek xiiwal yi fa tabaarakallaahu te sëriñ bi soxlawu ci dara ñii ñu waxan sëriñ bi di leen tarbiya it soxlawuñu ci dara am nag ñoo xam ne moom xiiwal yooyu moo leen fi andi ñoom teraanga ji ak xiiwal ji wut siwuñu yàlla wut siwuñu dara ak ñeneen ñoo xam ne toit bi da leen a ak ñoo xam ne sax même ay doom yi kilifa lañ ñoo xam ne sëriñ seeni waajur da leen a andi woon ngir ñu kii waaye comme yitte jooju nekkutan ci ñoom ñoo ñëpp nag sëriñ bi daf leen a xamal ba nungu ci woon a dugal kenn ci biir kër ku ci ñëw itam boo kee duñu la intégré ci groupe bi la ci bitti lañ lay bàyyi ci périphérique bi nga nekk ci kër yooyee gan gu ñëw boo ko mënee kar mos ci ak kéeg yooyu ñooñe nag ñoo daan def léeg-léeg ñu sataxlu dugg ci biir kër ga yëf ya dafa tabar fa kàlla di lu ñu jekku jël nangam nangam yore yenn comportement yoo xam ne moom la borom nëbsatul mubaarak di junj foofu loolu nag dafa nekk sunnatullahi fil ard yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee madina madina munawwara suñu borom da ko ne la wër ku jëkk ki allati ni yoomi na bil xëy bi iqmar salaati ma rasaqta min fuqon wala si ne yu'minu bi ma unsila ilayka wa unsila min qablika wa bil axirati yoo xam ne ulaayka ala hudan min rabbihim wa ulaayka al-muflihun ñooñu seen mbir leer la ak catégorie boo xam ne inna lazina kafaru sawaa'un alayhim anzartahum am ñoo mooy ñoo xam ne bu jëkk bi ñoom bi nga woote la nga la nga leen wax wan leen ko la nga leen wanul lañ gën a gëm mooy lañ ca teg seen bët lañ ca tegul seen bët bët lañ gën a gëm mooy alasir yominal bil xay bi ñooñu amuñu problème ay am na ñoo xam ne catégorie boo xam ne anzartum am lam tud sir um lànk nañ waaye nag am na nag ñoo xam ne ñooy ñi andi jafe ji mooy wa mina naasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil axir ma bi muminin yuxaadi'uuna allaha wa ma yaxda'uuna ila anfusihum ah te ñooñu ñu ngi sa biir di ànd ak yow di julli ci jàkka ji di ànd ak yow di def lépp te kiiwuñ ñooñee moom la sunu borom di yonent bi di wax ne képp koo xam ne dangaa gàddaay lillaahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallaahi wa rasulihi waaye képp koo xam ne dangaa gàddaay nag ngir soxna soo am wala ngir dërëm boo def ci sa poos wala luy jëm ci biir àdduna it boo ñëwee tabaar fakal la loole it mi ngi fi loole itam nag mooy catégorie bii catégorie bu njëkk bi mooy ñi ma tuddan te sëñ Mad daamin Jóob taalif ci ñoom ñaari xasiida di tawasul ci ñoom ngir seen taxawaay sëriñ Basiiru melal leen ci comme asma euh, euh, ashabu euh, ahlil kahfi ñooña mooy ñi nga xam ne mooy nuxba ba waaye ñii nag une petite minorité la boo xam ne waaye nag objectivité mayu ñu comme ñu xamal leen ne ñooña noonu lañ melal ñu am ñoo xam ne tubaab yi ñoo leen infiltré woon ñu ñëw wane ne ay taalibe lañ te déwiye taalibe yi ak yàq moo leen taxan na jóg waaye ñooñu minorité bu tuut la boo xam ne mënta euh, xajamal dara ci li nga xam ne mooy raamoo masiri jooju ak li sëñ bi wax ci loolu loolu dañ koy wax rek pour waram xam ne pour ngeen xam ne loola noona la demoon mais une petite la woon kon loolu te eh, mën nañu wax ne daanaka kon mooy kii mu des nag li sëriñ bi insisté woon muy sëriñ Abdou Samad <coughs> ñu waxtaan ci muy mujj nag muy dem ak sëriñ bi ak lool <coughs> xam nga ne sëriñ bi comme ni ñu ko waxee waaw mu mel ni ñu ngi ci jeextali jeexal nañu xam naa ñu ngi ci jeextali léegi kon lii moo nekkan liggéeyu sëriñ bi bi mu fi bàyyi ko fa tabaarakallaahu sëriñ Mbàkke bu sa nee na ñetti mébél rekk la fi bàyyi yoo xam ne yu mu xam ci li mu xam yoo xam ne amal na ci yéene te yàlla sottalu ko ci dundam ba ca jëkk nee na mooy yéene gum yéene war a dem màkka bu ñaareel bi mooy jumaa ji bu ñetteel bi mooy jàngukaay bi jàngukaay bi sëriñ Abdul Ahad li mu toogee ci xilaafa gi sëriñ Xayri Jaxate nee na yoor yoor dafa ñëw ci sëriñ Abdul Ahad sëriñ Amsatu Jaxate nijaayam ne ko kat laykat gannaaw bu ma yàlla tegee fii ma wuutu fi sama mag yu baax ñi bëgg a tàmbali sama liggéey dama bëgg na xam ba xam ndax sëriñ bi am na benn mébét bu mu fi bàyyiwaat gannaaw jumaa ji nga xam ne sama mag yu baax yi lam ca santaane woon lépp def nañ ko ne si yam sëddi ko huu jumaa ja da caa gën a siiw waaye ab jàngukaay la ca boole woon ca jataay ba mu ko waxee ab jàngukaay la ca boole woon boo xam ne daa waxan ne bu àggee kenn du gàddaay di génn réew mi di yuuteeti xam-xam fenn mu ne pàggulan la ko ay téere yoo xam ne bariwaay ba tax na sëñ Balla Faali Jeng ak sëñ Aliou Touré ñoo takk ñetti néegi ràng yañ ko def mu ne ko demal ca Mbàkke bu sa yaxalan na ko boo demee ci waa këram du njàkk ñu jox la yax ba sëñ Abdoulahat dem ci sëñ Baaxir mu yëkkati yax boobu muy dénkaane bi jox ko sëñ Abdou Lahad ca la waxee ne kon nag ñetti téeméeri millions yi may njëkk yàlla njëkk a jox ci xilaafa gi dama ciy tabax kàggugum yi bibliothèque bii mu symbolise muy mu mu wuutu ñetti néegi kaas kare yooyee mu defan tàmbalee ko ba ca topp mooy ma yónni nag muy sëñ Modou Mamoun Niang mu génn jëndi téere yooyee muy fa tàmbalee fa sëriñ bi tàmbale woon dooga tàmbali daara ji loolu moo waral teg bi moo jiitu téere yi topp ci mu toog a teg daara ji daara ji nag mooy ji sëñ yi nga xam ne tey moom la sëriñ Muhammadul Muntaxa di àggale ñu xam ne kon ci sembi sëriñ bi la woon jumaa ca itam ba ko sëñ bi santaane dégg ngeen xisa biñ ciy wax dafa nekk loo xam ne lu yóbbal la boo xam ne dañ ko war a bàyyi xel surtout ci jataay bu mel ni bi mooy ba mu yabalee sëñ Balla Coro muy demandé autorisation ci gouverneur général gouverneur da ko wax ne ko sémb bu toll nii kenn du ko sémb jox ko entreprise bu tubaab te collecté aux hommes bu considérable déposé ko dans une banque mu mën a assurer fonctionnement liggéey bi doonte ay weer la parce que benn entreprise yu tubaab buy jël risque yi engagé liggéey bu toll nii te amul garantie amul ba mu dellu see wax ko sëriñ bi sëñ bi ne ko demal ne ko nan defal li mu bëgg lii muy wax yomb na yàlla ci la indee nit ak juróom bañ dajalee lim bañ dajale ba muy sant taalibe daa wax sëñ Malick Ndiaye ne ko maali tey li may bëgg a wax damaa ñor-ñor goo xam ne sama làmb bopp wii rek moo ma ci jot. sant taalibe yi gërëm leen ne leen xanaa xamu leen na sart bii Balla Coro indi ko ci kiñ naan mooy borom ndar am na loo xam ne su ma ko ko nangu lan waxuma di ma teg sart bi waaye danañ liggéey jumaa ji seen alali bopp te sama dërëm du ci dem waaye njëggaama ko jëralu ne leen damaa bëgg leen a dénk-dénk boo xam ne na ngeen ko yóbbuloo ku ko fekkee na ko yóbbuloo ba ca seeni doom nañ koy donnante mooy lépp lu agsi te alal di ko def mu aju seen wàllu diine wala seen wàllu adduna la ngeen am da ngeen ko ca def lu ngeen amul sol leen seenu dàll wuti ko ci anam gu sell te jub fu seen kattan yem ngeen xaar say allahu bada usri yusra te rikkuwaay na ngeen moyta jël na ngeen moytandi ko jël ndimbalal koo xam ne bu fajee seen soxla yi njëggatu ko jar ndax benn ngeen jaay seen ngor wala seen diine jënd ko ne leen te yett yii benn rek a koy maye mooy moom sa bopp muy la liberté dem ak sa bopp l'indépendance ñàkk sa bopp ba ku la wër te yab du la yab la dignité mu ne mënal sa bopp rek moo koy am muy am autosuffisance ci li nga mën ta ñàkk mu ne ndax yéen wala fi a wax ne ku la ku mënal sañal la waaye bu ko rego nay ka la war a sañal daane ndax moos ku la war a sañal sañal la sax ku la manal sañal la tey ku la war a sañal sax ayut waaye li metti te war war warees koo daw mooy ku la wër sañal di la sañal ngir man gum la mënal kon boobu yóbbal la du sëriñ bi bàyyee léegi nag wàcc ab liggéey wàcc liggéey ba moom lañuy eh, ndax dafa am fan yii ay yu ngeen doon dégg moo tax nag ñu andi woon li nga xam ne tey moom la ci ñi nga xam ne mooy tubaab yi bindal seen bopp am na xam ngeen ne toi euh, administration coloniale lépp lu aju ci dossier kilifay diine yi lu ñuy wax bureau politique moo ko daan gérer rapport yëpp fa lañ koy yóbbu moo tax dégg ngeen Alaaji Abdou Aziz muy nettali bi mu ñëwee seet si moom Abdul Moustapha mu ne ba ma àggee bureau politique damaa woo di ma enquête naa ma loo fa wuti woon moo doon seere dossier yëpp bureau politique boobu nag ñoo bind muy sooyi mi nga xam ne moo ko jiite woon muy départ muy muy service bi ci nekkan njaareem moo bind rapport bii numéro rapport bi mi ngi nii mooy mooy mooy mooy BP 338 29 juillet 1927 télégramme ba numéro ba mi ngi nii 1390 boo demee ci archive nationale mi ngi nekk 2G 27 nga def benn trait 18 rapport politique ku bëgg a dem archive nationale mu wax ne ci ngoonu 19 juillet. la mu amatul Moustapha ànd ak Balla Coro ñu ñëw fekk monsieur Paal mi nga xam ne moo nekk commandant de cercle ba ñu di ko fa dogg andi mu yees ne ko kat am na mbir mu xew mu naa ah, mu ne ko sëriñ bi kat dafa mel ni daal eh, yàlla def na ca la ko soob nee na bi loolu amee Paal déplacé ànd ak ñoom fekk sëriñ bi fi mu noppaloo ci néegu boppam bi ci néeg boo xam ne fa la daan defee xalwatu nee na paal ne ko ah léegi ndax sëriñ bi am na lu mu leen waxan ci boppam bi mu ne waaw dafa waxan ne bu ma génnee àdduna nañ ma yóbbu Tuubaa mu ne ko nee yéen lu ci seen xalaat mu ne ko defal ko li mu bëgg nee na baal daal di d'accord ca loola daal di def autorise bindi autorisation bi waaye nee baal ba mu dellusee ci information bi muy jox gouverneur de bi nekk ci rapport bi pour da euh, garder secret bi ngir xam ne bu xibaar bi siiwee mën naa indi bruit boo xam ne kenn du ko mën a maanaam kenn du ko mën a maîtriser moo tax nee na baal dafa denc secret ba ba ñu nekk ci administration bi kenn yëgu ko ne biñ njëkkee ba guddi nag ne la ñu transféré sëriñ bi yóbbu ko Touba ne biñ ko yóbboo Touba yit ba denc ko fa nee na baal loolu mi ngi nekk ci guddi gis 19 juillet mais mais ci vingt trois ba nag nee na commande nee na baal déplacé wu na dem Touba pour xool déroulement mbir yi ne ba mu demee nag la fekk ne tabaar fa kàlla nit ñi nag fu nekk ñu ngi fay jóge ñëw di siyaare si bàmmeelu sëriñ bi bi nekk Touba waaye e foofee nag la defaati beneen arrêté ne leen kat pour désordre yu bañ a bari 48 heures nag bu fi kenn am lu ko ëpp waaye nee na respecté nañ loolu lépp ne bañ ca tegee ay fanit ñaari fanit samp nañ Sëriñ Mouhamadoul Moustapha mu nekk xalifa lii mooy rapport bi nga xam ne kon tubaab bi <laughs> ñoom ñoo ko bind xam nga bu dee ñun li ñu bind eh, su leen neexee ñu ne naa nga waaye xanaa nag lii mooy rapport bi nekk foofu am na beneen rapport boo xam ne it ba tey mi ngi fi boo xam ne moom eh, eh, bureau gouverneur moo ko bind moom it di wax di di di di lañ ko jox moom it di wax ne malheureusement xëy na la xalaatan yéene woon ko mooy sëriñ bi bu génnee àdduna ñu denc ko Touba ñu denc ko njaareem ndax gis nañu bi mu ñëwee njaareem njaareem dund na ci anam boo xam ne sur la plan socio-économique xam nañ ne buñ ko fi jëlee yóbbu ko fa neen loola day transféré wu dem foofa te bëggan nañ nag seen ville bii nga xam ne fi seen administration nekk muy dund waaye nag comme lii la njaboot gi bëgg te danoo war a xoolaat suñu diggante ak njaboot gi seet luy tax suñu diggante rafet moo tax